asalaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum live bi dafay door a commencé ngeen déggal ma lool du mun a nekk live bu gudd maa ngi nuyu ñëpp mais ñëpp gis nañu il est quatorze heures te tey ci trois heures dañu woote benn manifestation fii ci place de l'obélisque ma ànd nii ak Salma Ibrahima Fall bu Walfadjri ngeen xam ko euh, ñu bokk plateforme bi ñuy wax FDD euh, live bi nag su ngeen gisee xam naa ni ñi nga xam ne ñëpp ñoo ñoo fas yéene ñëw ci marche bi ñu ngi diggante jumaa ja gàddu seen sajaada war a ñëw ci marche bi donc loolu moo waral ñu def live bi ndax ñun ñii sax ñu ngi ci yoon wi nii war a dem ci marche bi loolu moo tax ñu def live may def live bi parce que nag dafa am lu xew dëkk bi dafa yëngu président Macky Sall dafa dugal Sénégal ci guuta ñu war a ñun taxaw sunu taxawaay bi nga xam ni moom la ñuy li waaye di nuyoo xaw ma wuyoo da cee war nuyoo xaw ma nu ko wolof Njaay di waxee dégg nga parce que tey dañu ne ñun dañu war a bañ lii président Macky Sall di def bañ nag ngeen baal ma àq de mais ñaar képp la bañ ñaar képp la bañ dangay am dooley bañ wala nga am xelu bañ ñaar yi kese moom moo am kon damay woote ñi nga xam ne ñëpp ñoo nekk ci live bi te di ko suivre te nekk nit ñu nga xam ne dañu contre li ñuy waxee dialogue ba suba ba léegi kenn ku nekk naan je suis contre le dialogue à commencer par les candidats a commencer par la société civile à commencer par ñëpp ñu nga xam ne suba ba léegi ñu ngi yëkkati seen kaddu ne d'accord ci waxtaan bi nanu wàcc ci mbedd mi xeex parce que nag àdduna moom ñaar képp lay may li nga bëgg mooy le rapport de force wala les négociations comme nag ñun xam nañ ni président Macky Sall wóoluwuñu ko ci kàddoom wóoluwuñu ko ci doxalinam 15 heures c' est dans dans quarante minutes. 15 heures léegi mu jot. Mhm. ah ma bàyyi Sall ma wax ci tuuti ma dellu siwaat ci pour wax ni rek live bi loolu kese moo ko tax a jóg li ko tax a jóg mooy wax leen ni itam on ne peut pas avoir une chose et son contraire. soit dañuy bëgg jàmm ñu xam ne jàmm la ñu bëgg jàmm liñ koy maye ñun ñëpp ñu xam ko kenn ku nekk suñu def dépassement jéggi boppam jéggi ay intérêt am jéggi santiment wam doxee xelam ak xalaatam ñu jëm ci jàmm waa ilaa ñu ne jàmm kat pour ñii ñu jàkkaarloo dépassement mënu koo maye taxaw temb moom moo koy maye ñu ne kon nañ dem taxaw temb jàkkaarloo président Macky Sall li ñu woote tey c'est pour dire non au report c'est pour exiger une date d'élection képp koo xamante ne da nga ni yow d'accord ci dem di waxtaan ak président Macky Sall ci datu élection da ngaa war a génn taxaw ci place de l'Obélisque à 15 heures wane sa ñàkk d'accord wala boog feneen fu la yàlla may mu fekk la fa nga taxaw foofu exiger ko. parce que nag mënuñu ne duñu waxtaan ba pare ne duñu xeex duñu waxtaan duñu xeex loolu mënul nekk il faut qu'on choisisse si on veut se démocratiquement il faut que néglige le respect de nos de, de nos am na ñu naan ndax marché bi autorisé nañ ko wala interdire nañ ko damay laajte ndax sa droit boo koy lijjanti da ngay ñaan ñu ñu may la wala danga nga koy da nga koy foqati ma baal nag ak Salma. waaw maa ngi leen di ziar bu baax a baax comme ni ko la dame de fer waxee rek euh, fi mu nekk nii dañu toll ci ñaari mbir sa battre ou se soumettre suñu décider nag ni sa soumettre nañu dem dialogue gi comme nag dialogue ñu nañu dem. wane li nga xamante ne du duñu sax ni sa baat parce que nag xeexuñu defuñu lu yoon di tere li ñuy def mooy fokkati suñu moomeel parce que nag manifestation dafa nekk droit boo xam ne dama ko am yow bi may seetaan nga am ko may mun a bu so am ko sénégalais bu nekk am ko ñu bind ko ci suñu constitution kon tey ji bu fekkente ni président dafa bëgg a taxaw ngir fokkati suñu moomeel de tripatouiller suñu constitution ba tey jii def na janoo ak taskatu xabaar yi mais amul lenn lu leer lu xamante ni tey jii teg ko suñu loxo ñun nag ñoo war a jël suñu avenir en main ñun ñoo war a jël suñu avenir en main wax ji dafa doy que ça soit les candidats euh, la société civile le am lambda yow mi nga xamante ne yaa ngi ñuy suivre ci live yi nañu génn wane suñu naqar wane ni d'accorduñu jamono ji ci daay jaay doole ji am Sénégal nañu respecté suñu constitution fexe bañ jot ñu jox ñu date bi nga xamante ne dinañu organiser élection yi avant ñoo egg si 2 avril donc loolu moo am solo benn live bu ndaw la rek boo xamante ne dañ ko doon def ndax nag lu waay di woote na jiitu te ñun fi nekk nii pare nañu. defuñu nag lu yoon di tere. mais dañuy dem exercer suñu droit bi nga xamante ni constitution bi daf ñu koo may ku ñu ci fekk ñu jël ku ñu ci fekk lu aussi ñun ñoo ca yoon ba waaw. merci Salma Salma wax na ko def nañ seen wareef moom ak maam Birame waaj déposé nañu suba ba léegi ñu ngi leen di xaarloo di leen jaabanteloo diggante ay commissariat joxaguñ leen notification mais dama ni. mbir mi du question de notification on est dans un régime de déclaration te ce qu'on réclame là c'est notre droit le plus absolu le droit à la manifestation bu sénégalais yëpp nag d'accordee ni date bii kat fii président Macky Sall bëgg a jëm arrangé wu leen il faut que le sénégalais le montrent par des manifestations pacifiques par des manifestations citoyennes c'est tout ce qu'on demande donc s'il faut faire cette situation il faut que ñëpp génn ku ne jël sa responsabilité am na ñu woote ay conférence de presse dama leen di ñaan ñu surseoir à ces points de presse là parce que mënoo nit ñi di woote xeex ngeen di woote conférence de presse parce que xam naa ni kenn gën leen bëgg Sénégal kon ñu ngi leen di invité ngeen bàyyi conférence de presse bi ñëw yéen ñëpp fekk si ñu place de la nation à 15 heures bu ñu ci jógee conférence de presse mën naa am conférence de presse mën naa am parce que nag si on rate l'occasion mobiliser pour woon opinion internationale bi président Macky Sall waxee démb lan mooy suñu réponse ah mbir mi nag du mën a continuer nii du mën a continuer nii de ñu continuer rek naan non non non non non au dialogue non non non à toutes sortes de discussion mais non non aussi à, à, la mobilisation il faut que les gens ñu xam li ñu bëgg ñu joxe sa donne les moyens loolu aussi moom mooy dëgg loolu moo waral kese ma jéggalu jël ci seen dix minutes ci seen temps diggante bi ngeen di jóge jumaa ak di dem place de la nation parce que nag responsabilité bi responsabilité ñëpp la citoyen yëpp du sax acteur politique kese du mouvement yi kese mais ñëpp la donc loolu moom laa leen di jox rendez-vous maa ngi leen jox rendez-vous yéen ñëpp nag le peuple nag laa wax le peuple tous les sénégalais épris de justice ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo nekk ci biir réseaux sociaux yi nekk ci biir seen kër yi te d'accorduñu ne président Macky Sall li mu bëgg a organiser lundi ak mardi du dialogue loolu ngeen wax loolu ngeen wax waa léegi on vous donne rendez-vous à 15 heures pour le montrer et pour le démontrer dans les rues de Dakar précisément à la place de l'Obélisque pour montrer que vous n'êtes pas d'accord avec ce report et vous n'êtes pas d'accord ak kese la maa ngi jéggalu on a actuellement le temps dañuy dem war a rejoindre ñoom Mame Biram commissariat Euh, quatrième ah quatrième pour xam lan la police wax parce que ñoom ñoo déposé woon euh, euh, kii bi ñu ngi dem rejoindre leen pour xam lan la police wax parce que police ñoo leen woo dinañ leen dem déglu nag buñ fa jógee nag comme ñun ñoo woote dinañ dem place de la l'obélisque ñaan yàlla tase fa ak le peuple sénégalais voilà buñ leen buñ ko tasewul ak peuple bi nag ñu xam ne peuple bi xëy na am na xëy na ñu ko yëgul wala lu demee noonu après on appréciera mais daal vraiment donnons-nous l'occasion de nous mobiliser pour parler d'une seule voix et arrêtons de nous cacher derrière nos craintes et nos peurs parce que c'est pas comme ça qu'on va arriver à à à faire à faire euh, reculer les lignes donc à tout à l'heure